mboolem sénégalais yi ak jigéen mag ak ndaw mboolem sénégalais yi njiit yi ak ñi ñu jiite kilifay diine ak kilifay adduna yi jàngalekat yi ak waarakat yi ak jàngalekat yi alquran yeeg mboolem yéen ñi waa Sénégal te wax an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah صلى الله عليه وسلم مانغ لين دي نويو نويو بالاسلام تموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خنا دي فاتلي ني لينو نك ديكو داف ورنت امنا سي تي بوروم خم خمي و باري تموي داجالو غير بيت اك فيتو تي guddi gi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama juddu woon def nañ ci ay waxtaan ba tey ak ay commentaire ba tey waaye bu fekkee ne bii noo koy def te mënuñu koo ñàkk def war nañ cee sàmmonte ak li ci mag ñu baax ñi daan sàmmonte te moo di lu wuuteeg alquran ak sunna ba a am ci biir ndaje mi xam ngeen ne sunu sëriñ ba sëriñ Hadi Touré yal ko yàlla dolli leer yëgu koy martaba daana faral di wax ne guddi gii def gi bidaa la noonu la ko daal di waxee la da daal di wax ne bidaa bu rafet la waaye bidaa la kon nag buñ ko dee def day fekk lu wuuteeg kitaab ak sunna amul ci defin wi bu ci naree am nu bàyyi ko ma mu ne masalan bu fekkee góor ak jigéen daje dañu jaxasoo ku ko jëkk a ñëw yëgal ko ko ci guddi gi lay tas gàmm gi tuub ko te du ko defati kon boog loolu ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel te maa ngi sàkku ci am ansaarullah ñu fexe ba sàkku suñu haaji boobu ñu matal ko te mooy fexe ba góor ñi ak jigéen ñi separe ci guddi gi ak ci bëccëg bi lépp bokk na ci te nga xam ne suñu haaji daane ko sartoonte moo di buñ fi dajee ndaje mi nag am njëriñ bu bokkut ak lekk naan rek kenn ku ne am nga sa loo lekk loo naan waaye ndaje mi nu jàngaale fi diine moo taxit daf daan dajale ay boroomi xam-xam ci bëccëgu gàmm gi wala sax balaa gàmm gi agsi ñu toog seet ba xam yan sujet yan thème lañu war a waxtaane thème yooyu yële ñu seddale ko boroom xam-xam yi kenn ku nekk ñu dénk ko benn thème masalan ki waxtaan ci tawxiid kee waxtaan ci julli kee waxtaan ci njàpp kee waxtaan ci cangaay kee waxtaan ci asaka bu ko defee ñi fi dajee jële fi ci wàllu diine loo xam ne xamuñu ko woon lool itam nañ fexe ba sàmmonte ak moom incha allahu taala xale yi ci guddi gi waajal nañu ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yooyu am njàng la mu ñu war a jàng suñu diine ñun ñëpp nu bokk ci bàyyi xel amma nun nag liñ bëggoon a waxtaane ak yéen waxtaane ko ak Sénégal yi yëpp moo di crise yi nga xam ne moom la Sénégalais yi nekk di dund ci jamono te muy ay crise yu bari te crise yooyu xam naa ne bi ci nit ñi gën a tawat mooy crise économique bi nga xam ne ci la réew mi toll nga xam ne marchandise yi cher nañu xaalis jafe na lus jëfandikoo jafe na bu baax a baax ñu baree baree bari ñu ngi tawat loolu ab crise la du loolu rek mooy crise am na crise ci wàllu valeur jikko yi xam nga nit jikko yi yàqu na xam ngeen ni nit ku dëggu jafe na léegi nit ku am koo xam ne ki am na kàddu lu mu wax def ko te itam lu mu def lu mu mën a wax la jafe na way jur yi nga xam ne ñooy toppatoo li war ci seen i doom bareetul doom yi nga xam ne déggal nañ seen i way jur du du ñëpp góor ñi li war ci ñoom ci seen i soxna sàmmantootu ñoom ñoom ñu ci bari ci ñoom dañ koy manquil soxna yi itam li war ci seen i borom kër daanaka bëggum alal ak wuti ko tax na ba moo tollatuñ ko crise ci wàllu valeur xeeti crise yu baree baree bari crise tam ci wàllu santé su ma nee crise ci wàllu santé wala sax ci wàllu éducative ci wàllu éducative wala maa ñëw ci santé ci wàllu jàng ak jàngale ak yar xale yi ak jaar leen ci yoon muy jàngub lislaam bi di jàngum adduna bi ñaari jàngu yépp am crise xam ngeen ni xam ngeen ne mos njàng de mi ni muy doxee léegi niveau yi nga xam ne moom la xale yi ji am bu dee ci njàngum arab mi la wala ci alquran bi bu dee ci wàllu njàngum adduna la ak école bi benn bu ci nekk la ca xale yi daan am ci niveau léegi wàcc na bu baax a baax loolu benn xeetu crise la beneen bi ci des mooy crise ci wàllu santé su ma nee crise ci wàllu santé xaw ma ndax damay wax ñàkk wér gi nit ñi ñàkk wér xaw ma ndax damay wax problème yi nga xam ne moom la fajkat yi am ci hôpitaux yi ak grève yi ak tawat yu bari crise yu baree baree bari crise yooyu nag bi ci ëpp doole gën cee dangereux crise spirituelle la maanaam crise ci wàllu diine moom la Sénégalais yi gën a jànkonteel crise ci wàllu diine xam naa ne ñàkkul njiit yi kilifay diine yi ak kilifay politique yi ak boroom xam-xam yi xam naa ñàkkul ñu ngi xalaat ci crise yooyu ndax ku say njaboot toll ci yi crise yu bari faaw say programme dañ ca boole xalaat ba xam yi crise lu ko waral ak lu koy faj loolu nag mooy suñu te mu waxtaan lu waral suñu crise yu metti yu bari yi ak lan mooy saafara si li waral crise yi sabab la am benn sabab rek la crise yu bari yëpp yëpp yi naan ci biir Sénégal benn sabab rek moo ko waral sabab boobu nag bu fës la bu yomba xam waaye ci ku yàlla leeral bëti xolam yal na yàlla leeral suñu bëti xol euh, loola sabab bi mooy adduna siinu nag jant bi di fenk ak di so weer wi ak biddiw yi di fenk ak di so ñu nekk ci guddi ci bëccëg sikki sàkk amul ci ne suñu borom yàlla moo ko sàkk moo sàkk adduna bi moo nu sàkk moo nu moom yàlla moo nu bi mu nu sàkkee moom nu andi nu fi dafa am lu mu wàcce ci ci te mooy yoon wu ñu war a jaarale adduna bi nu nu war a dunde ci ci wàllu diine nu war a dunde ci suñu digganteeg suñu bopp nu nu war a dunde suñu digganteeg suñu borom yàlla nu nu war a dunde suñu digganteeg suñu mbokki doomu aadama yi ak univers suñu borom yàlla dafa wut aw yoon wu jub yoon wii jaarale leen ci adduna ba noppi yoon woo bu bee mu tudde ko zikr bu bee muti tudde ko nuur ala kulli xaal maanaam yi mel ni mais mooy asiraatul mustaqim yoon woowee nga xam ne yàlla da ko wàcce ci nun bëggoon nu nit ñi ñu jaar ci dañ cee jaarut wax ji gudd gàtt loolu moo nu andil ay crise crise yi li ko andi benn sabab la te moo di ñàkk a jaar ci yoon wu yàlla wi mu rëdd ne jaar leen ci mu ngoog xam leen ni noo ngi nekk di xewloo xewli saa borom yàlla guddeeg bëccëg xool leen courant bi nga xam ne bi mu coupé léegi euh, rajo bi dafa daal di ne amatul kaddu courant boobu ndax du lañ koy jaay ndax du lu cher lañ ñu koy jaaye suñu borom yàlla moom mi ngi ñu indil ab jant jant bi di ñu indil ak leer du ñu indil ab tàngaay bu mel ne bi ñu ko rabbi indil te gën ko ndax ñu koy jaay daf nu koo jox ñu di ko xéewloo mu indil nu ab taw indil noor indil nu nawet mbokki jullit yi ñaata ton ngeen yaakaar ne moo ñor ci Sénégal ci gerte ren ñaata toni gerte moo ñor ci Sénégal ren 2019 ñaata toni dugub moo ñaw ñor ci Sénégal ñaata toni ceeb ñaata toni mboq ñaata euh, ton ci wàllu ay légumes ak ay fruits loolu lépp ki ko joxaat mooy yàlla subhanahu wa taala dëkk nag ci suufam si di xéewloo xéewalam yooyu boole kook dëkk ci jàdd ay ndigalam ba noppi jàmm di am loolu munta nekk munta nekk te dëpp lu ëpp fanweeri at ngi nii wax jii ma di ko takkaraar di ko takkaraar maa ngi fàttaliku bi may firi suuratul Haaqqa te xam naa ne ci sabaaniinaat yi la bokk bu maag léegi fanweeri at yi tegal na mosul ñeent fukki at de waaye bi may firi suuratul Haaqqa ci wolof ak léegi mat na fanweeri at ak nangam ca laa la waxoon naa leen ni Sénégal lii fi nekk ci toskare ak ay jafe-jafe ki problème feeg dëpp nu te dellu ci mën xaj bi sa borom yàlla tëral problème yooyu day yokku jafe-jafe yi day yokku loolu rek moo andi suñu yu bari yi suñu borom yàlla bi nga xamee ne bii wàcce ne aw yoonam ne jaar leen ci dafa am lu mu wax dafa am lu mu dogu mooy yoon woowu képp ku nekk ci àdduna si te jaaroo ci say mbir du baax sa dund na naqari te wax na ko suratu taaha fi mu waxee ne audu billahi min alcheytan arrajim fa imma yaatiyannakum minni hudan faman ittabaa hudaya fala yadillu wala yashqa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سنبرم يالا دفني تنيت نيغنا سو أو يونم ويمو بغي كفي جار تجار لفي أدن بي كفي جار نك دو, دو, دو, سانكو دو رير تيد دو تخيلي كوكو جاد نك كو جاد يونم يون كو جناو سخ دندو دنا خط te bu alaxira boo dekkee da ngay gumba di talax talaxe ba daanu ci biir naari jahannam anañ ci yàlla musal mbokki jullit yi sama borom yàlla lii la wax nee na bu alaxira ñi nga xam ne nanguwuñu woon a jaar ci yoonam wi mu tëral ne nañ ci jaar seen dund day metti ci adduna te bu alaxira bu ñu dekkee ak ngumba la ñuy dekki waale di talax talaxi xam nga mos ka dekki dekki waale gumba yaakaarul aljanna bu ko defee nag muy laaj sama borom yàlla man de ci adduna dama daan gis kon nag lu tax ma dekki gumba sama borom yàlla ne la koy tontu mooy dama wàcce woon sama alquran wàcce samay ndigal ak samay tere faale woo ko jaaroo ca moo tax nga fàtte ko fii tam dañ laa fàtte defal ay bët yal na yàlla musal ci laaj boobu ak tontu loolu yowmal qiyaam kon mbokk suñu borom yàlla dafa dogu ci yoonam wii mu tëral képp ku ci jaarul muy muy kenn nit di mbooloo faw ngeen nekk ci jafe-jafe ak xat-xat nga ngoog te loo bari bari alal du ci feeñ du ci jëriñ dara loo bari bari doole du ci jariñ dara mbokki jiit yi bari na ko yor alal ju bari nekk ci paleem bu bu bu rëy te fekk mi ngi ci malheureux ak dund gu xat gu naqaree naqari bari na koo xam ni kii yorul dara miskin la waaye yàlla roofal ko dund gu neex ca dënn ba ak ca xol ba mu di ko dund seen nit ñi bàyyi wuñ ci xel suñu borom yàlla moo yor saada moo koy joxe waaye alal ju bari du ko joxe doole matériel ju bari du ko joxe moom mi koy joxe nag dogu na ci ne feet jaarunu ci yoonam wi duñu mën a am ak texe mukk ci àdduna te bu àllaaxira moo yiis kon mbokk mbokk juut yi loolu li muy tekki bu leeral leer moo di sunu crise yu bari yi ñuy dund li ko waral lenn la crise yi ñoom bari nañu waaye sabab bi lenn la mooy ñàkk a jaarale suñuy mbir ci fi borom asamaan ak suuf bëgg ci minhaaj bi nga xam ne ci yoon wi nga xam ne moom la yàlla rëdd yoon woowa nag suñ ko dee laajte du mooy mukk salafisme boo xam ne day tege ci kaw rey ay innocent tege ci kaw ay nit ñu ragal yàlla di góor góorgóorlu seen kem kàttan ci jaamu yàlla nga ne ay yéefar lañu tege ci kaw ay nit ñuy jéem a sell nga ne ay saay-saay lañu tege ci kaw maqaamam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu diko ko ak diko minimiser nga xamne ne suñ dayoo jaamu yàlla dal dañ ciy boole xeeb yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ñak xam martabam salafism bo xamne li moy ay mbiram du moy manhaj bobu sa borom yàlla wàcc sufism itam wala ay tariqa yo xamne basé wul ci kaw fondation yi nga xamne mom la yàlla fondé l'islam leral ko ci alquran leer ko ci làmmiñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tariqa boo xam ne wala soufisme boo xam ne wul ci kaw alquran ak sunna du mooy manhaj bi nga xam ne bi moom la suñu borom yàlla andi bëgg nu jaar ci te feet jaaw ñu ci du mën a am jàmmi adduna wala jàmmi alaxira kon bokk yoon woowa mooy wan manhaj bi nga xam ne moom la yàlla bëgg nu jaar ci mooy wan manhaj yoon woowa mooy dundin woo xam ne dañ koy jële ci alquran dañ koy jëlee ci waxiinu ci waxi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam dañ ko jëlee ci alquran ak sunna te mu ànd ak wasatiya ak diggu doomu boo xam ne du cate ci ndeyjoor bay kéefarloo ay nit ci jullit wala muy xeeb martaba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam du cate itam ci càmmooñ bay dindi ak di soppi li nga xam ne moom la yàlla wax ci alquran ak li sayiduna muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam ci sunnaam ak fi ak dig doomu ci walu jëfe alquran ak jëfe sunna sayiduna muhammad alayhi salatu wassalam loolu mooy yoon wi nga xam ne moom la yàlla dogu ci ne dañu ci jaar door a mën a am jàmmi adduna buñ ci jaarul jàmmi adduna du am jàmmi alaxira du am mbokk julit di moo tax ñu war a xool lii ñu nekkee ci ay musiba yu bari li Sénégal nekkee ci ay ay ay ay ay musiba ci bokkaale bokkaale bu bari ak lan bay bi sunuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf lépp am sirk bari na lool ci biir Sénégal sirk bi loolu bokk na ci mandargay jàdd gi ñu jàdd mën naa ji suñu boobu aha alquran dañ ko wayafal lool wayafalin wu raglu loolu tam bokk na ci mandargay jàdd gi ñu jàdd yi mën boobu aha amna ci nun tam ñoo xamne dañoo wax ne ay jullit lañu waaye dañoo woyafal maqamam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga xamne yàlla da ko fonk te da ko fonklu ba ag ci ne la taj'alu du'a ar rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'da yàlla nee ñi ngeen di woyé yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci seen biir ñi ngeen di wotenté bu leen bu leen ni woyé sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam boo dee woo sa mbokkum jullit mën nga koo woo comme ni ngeen di wootee ci seen aada jaaral ci turam waaye boo dee woo yonent moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom woo ko wéeru am teggin kon boog ni nga koy woowee sax yàlla dafa bëgg nu sedd ci ne moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nun nag léegi dañ ko woyofal bu baax a baax nu yaakaar ne nag wéetal yàlla mooy xeet maqaamam Seydina Muhammad dégg naa sallallahu alayhi wa sallam dégg naa amna groupe whatsapp bo xamne dañ cee wax modou mu mag ak modou mu ndaw sama doom yi bokk da nek nekk li ba la luy modou mu mag modou mu ndaw mu ne modou mu mag mo yonente yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam nga li dara jar na ah woyofal diine l'islam lool ba di ko foye woyofal sunna sayduna muhammad lool sallallahu alayhi wa sallam ba daanaka duñ ko jëfe ah am na ci ñun ñoo xam ne ci dëgg-dëgg diine sa borom yàlla ji mu wàccoon muy alquran ak sunna dañ ko fa ne teg wut seen yeneen i mbir tudde ko diine di ko dund ci yàlla musal aha loolu lépp ñu boole ko ak ñoo xam ne dañoo jàpp ne jàng nañu diine waaye ci biir njàng mi dañ ciy réeres lëf ñenn ñi am ak fecceeku gu mat sëkk ci wàllu diine lu leen neex askan ci diina ji ne noonu la diina tëdd ba àgg ci am na ci ñu ñoo xam ne sunu mag ñu baax ñi nga xam ne démb ak bëkk démb ñoo fi nekkoon dinu jàngal ñoo nu jàngal alquran ñoo nu jàngal julli ñoo nu jàngal nodd ak liqaam ñoo nu jàngal koor ak asaka sunu mag ñooñee dégg naa ne am na ci réew mi ay xale yoo xam ne dañoo wax ne sunu mag ñooñu ay yéefar lañu subhanallah te sunu mag ñooñu ñoo fab seen dund lépp daf ko ci diina ngir mu taxaw sunu mag ñoo fab seen dundu lépp ak seen dundu njaboot ak seen noflaay lépp ñu sacrifié ko pour l'islam tas ci biir Sénégal ci waxtu woo xam ne gisuñu benn naar waaye suñu mag ñoo ñooñee am na ñuy wax ne ay yéefar lañu aha bu lu ñëwee ci wàllu réseaux sociaux yi li fi xew ñun ñëpp xam nañ ko mooy ay kàddu yu ñaaw yu ñuy jokkalante ci biir soufisme nga gis tariqa bi ay taalibeem دي خاص طالبي طريقه به ولا ني خاص تخسرين به ولا ني نسرين طريقه بيت دي خاص طالبي طريقه بي ولا سرني طريقه بي من غو باغا خمنا لغي لي سوسيو يي لي تي خيو تي اي وخ يو نياو اك اي ساغا اك اي وخ يو بون كين موتو تي لغي سونو سرني موتو تونتي سونو كيفاي ادوني بروتيسيان موتو نوتي borom xam xam yi mucc ñu ci kenn ku nekk am na ay nit ñu jóg di wax ci yow ay يا ساي ديك انت الصوف ميدوك طريقة ميدوك طريقة يا ساي ديك انت ثلاث اك صوفي من ñëpp ñu دي di xasante di rëbbante di waxante ay wax yu الحديث الذي خرجه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يبقي لها بالا waaye mbokk juut yi bala maa weesu tomb boobu tombub waxante yu ñaaw yi jullit yi waxante ci whatsapp yi ak ci facebook yi ak ci mboolem réseaux sociaux yi nga gis nituk tariqa di xas mbokkum nituk tariqa ma mu nekk ci beneen tariqa ndax mbaar kum càmm bokk ñu sëriñ wala mbokkuñu ñu tariqa bu ñu ne yenn saa yi sax ci même tariqa bi ñii dañuy xas ñii te ñoo bokk tariqa bi yenn saa yi nag xasante bi day mel ne fi mu gën a méttee mooy diggante salafiya ak suufiya ñiy weddi tariqa ak ñu koy saxal ñoom ñëpp ñuy waxante ay wax yu ñaaw ma bëgg foofu ma fàttali fi sama bopp te fàttali leen ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu wax ci wax ju ñaaw ñun ñëpp nañ ko déglu ci xadis boo xam ne buxaari moo ko solo muy xadis bu wér sayiduna muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam nit dana wax benn baat bu naqari yàlla amulu ko solo baat boobu tax bu àllaaxira moo xalambaa ci biir naari jahannam nit dana wax benn baat bu naqari yàlla wax jooje moom mi ko wax amulu ko solo waaye nag kàddu googee tax koo xalambaa ci biir naari jahannam loolu mboolem ñi yëkkati seen kàddu ci réseaux sociaux yi de xasante nañ ci bàyyi xel te itam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam sibaabul muslimi fusuuqun nee na xas ab jullit ak caay-caay la nañ ci bàyyi xel bu baax في لفظ الامام احمد ان الرجل لا يتكلم في ما يرى ان تبلغ حيث بلغت يلمي بهذه النار سبعين خريفا في لفظ امام احمد من اللي انت محمد نينا صلى الله عليه وسلم نيك كده دنا واخ بن بعد بعد بو خامنا بي نمو دانجيري موم بايو كو خيل ياكارو ني واخ دي اغنا فوفو تي تي تي غراو بن بعد بو مو واخ تخ بو الاخره مو خلم باي تي بير نار جهنم المد جروم نيا biir daari jahannama ak kàmb guy tàkk kàmb guy tàkk xam nga ne boo ci dee daanu lu mu gën a xóot sawara yu gën a tàng yeneen ci bi nag xamal nu ne sallallahu alayhi wa sallam nit wax na benn baat tax yowmal qiyaamati mu jullootu ci biir naari jahannama di xalambaay di daanu di daanu di daanu mel ne kuy daanu ci kenn boo xam ne bi amul ndett di daanu di daanu di di wàcc di daanu lu mat vingt quatre heures di wàcc di daanu lu mat semaine te jotagul ndett la lu mat at jotagul ndet la lu mat juróom ñaar fukki at mu door ne del ci ndet le ko wër lépp di safara yaram wi jàpp limu sal jàpp le ko wër jàpp kawar bi jàpp tànk yi jàpp bir bi jàpp mbokk di di li sayyidina muhammad neena sallallahu alaihi wasallam dana jege ab julit ci genn kàddu gumu wax ah الله عنه ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله امنا na واخ معاذ بن جبل دفا Jabal dafa بي صلى الله عليه وسلم ابلاج alayhi wa sallam ab laaj dama bëggoon nga jàngal ma loo xam ne dana tax ma bokk ci wa aljanna te mucc ci naari jahannam yonent bu ne ko laaj nga lu jafe lu yomb tàmbali di ko leeral loola nam koy amee ci xeeti jaamu yàlla yi la jëm ci julli la ci dem ci koor la jëm ci tawxiid limal ko ba mu bari mu ne ko waaye loolu lépp nag loolu lépp nag malaat bi mooy mooy làmmiñ lii yonent bi dafa génne làmmiñ wu tedd wa téye ci loxoom ne ko kii kii moom moo yor lépp ci lu tax a mën a mucc ci naari jahannama Muaad ne ko yaa rasulallah naa li nuy waxante yàlla dañu koy jàppe suñu wax ji nuy waxante yàlla dañu koy jàppee yonent yàlla Muhammad da ko ne sallallahu alayhi wa sallam daa mi tas kar secret ko um ni ko xëy na mën naa ko tarjumaa doon parce que wala yu mel noonu daa amul dara lu gën a mën a tax nit ki jullootu ci biir naari jahannam bopp bi jiitu tànk yi wuti kaw lu raw la mu wax ci aw làmmiñam ñu bind ko ci moom kon mbokk mbokki jullit yi ñun ñi nga xam ne noo daan dem ci réseaux sociaux yi di saaga ay kilifa di saaga ay nit yi diine mbaa nit yi adduna di saaga ay ay ay suñu mbokki jullit بثغرات لن لأم آه، آه، آه، قيمة فيلا ننكو توب تباي ريزو سوسيوي ريزو سوسيوي كتي دمتي نفك دنجي جانج القرآن ولا دنجي جانج الدين تمودون يلا نينا ينتي بنينا صلى الله عليه وسلم وهي خسن تبنى الكباي كي يحمل كل نغو كباي ندخل نفا جاب نموني كي دق بطاق مو جاب مبقم جلسم يكت كمم عبدرم لنياو مو حم كوكا سيغل لمدال روات نمو كلفه na xam ne dem naa la jeexal ne mën na ko caa fekk ci benn baat bu mu wax yal na nu yàlla jéggal te jubbanti nu bu njëkk ba bokk na ci musiba yi bu njëkk ba dañ daan jooy jigéen ñi nga xam ne dañuy nekk ci biir dëkk bi te duñu muur seeni awra di sol col gu gàtt di bañ a xijaab loolu lañ daan jooy ak di jooy ñi nga xam ne ci ay jigéen dañoo wax ne daal saa borom yàlla daa maanduwul subhanallah mbokki jullit kenn dana wax yàlla daa ñoom ñu ne daal bu nit jaay génnee àdduna ñuy miraas alal ja góor jigéen dañoo war a yemle moo xanaa ñu ëpp yàlla xam-xam loolu lañ doon jooy bu njëkk waaye léegi am na lu ci dolli ko léegi dégg naa ne dégg naa ne am ngeen aw jigéen woo xam ne léegi dañu ne law ca kanamu góor ña di tudd ay doom di mayey sëy ay place yoo xam ne yàlla góor la fa teg jagleelu ko jigéen ñu dem ñafa te loolu lépp xam nga ne ci pexey seytaane la bokk ci pexe iblis la bokk li lépp bokk na ci musiba yi nga xam ne moo nekk di xew ci biir réew mi yal na yàlla jégal te jubal bi li lépp bokk na ci maanaam yi wane ne nekkatunu mukk ci yoon wi yàlla rëddoon na jaaral leen ci adduna bi aha dégg na fi itam ku ñu wax ne yàlla la ah ab taalibe bu taxaw fi kanamu sëñ bi ne ko yàlla ba dara sëñ bi wax ko lu lu ñor def ko lu ñor loo xam ne loolu du ko wax waxati mukk sëñ ba ma fa mafagal bàyyi ka wala koo xam ne kii ñoo ngi koy wooteel martaba bu tal ni martab sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg naa am na ci Sénégal ñu ne daal ay sëriñ lañu ñoom nee nañu wooy jiite jiite nañu sayidna muhammad julli sallallahu alayhi wa sallam bas ngeen a dégg yi wax kéefar lii lépp di am ci biir réew mi lépp di wane ne am nañu azma ci wàllu ci wàllu diine yi wane ne yëf yi jaaratuñ ko mukk fa yàlla bëgg ak ko ko fa jaarale ah li ma waxagoon ci ay ñaaw-ñaaw nag dolli leen ci ñaaw-ñaaw bi gën a tax te moo di léegi daanaka lu nit di def bëgg alal a tax ci li ci gën a bari jàngalekat buy jàngale alquran danoo jàppoon ne kii jàngale alquran da koy jàngale ngir yàlla léegi ay daaree alquran yoo xam ne wutum alal la ko tax a jóg dana gàññ ak ñuy jàng te fekk la leen tax di jàng mooy bu ñu jàngee baagal am ci adduna ak ñi nga xam ne ñi dañuy politique ne dañoo am ay parti politique te fekk ab xaalis lañu bëgg bëgg ñëw mukk sëriñu Sénégal xaalis lañu bëgg yéen a ma gën a xam loolu réew mu toll na Sénégal toll ci quatorze million ñaata parti politique moo fi am nangami téeméeri parti politique ci melnum réew mu ndaw parti politique boo ci dem ka ca bopp ba mu bëgg mooy àgg ci bopp réew mi wala mu am ab portion ci ay ay ay carte vote jaay ko kilé ci bop rew mi ñu and bu ko défé muy am lu mu yobbu ci kërëm politique ngir am alal jang ngir am alal jangale ngir am alal ab sëriñ sax day am ay talibé fekk lam leen di doyé moy alal deug na ñu né dafa am sëriñ bo xamni bi da wax talibé ni leen man alal ji ma leen di laaj ngeen ni ma ko jox yeen rek la bëggal lu baax waaye man sallaw jinni sax dañ may jox alal ya subhanallah mo jamono ji ni mu naqare eh. sénégal ni yëf yi dané gasoil bi jafe na ceeb bi yokk na suukar si yokk na nit ñi amatuñu dara ab sëriñ boo xam ne am nga maqaama mu toll ne jinne di la jox alal tey say taali du nga jox leen ci alal jooja waaye nga dem di laaj taaliba alal te di leen nax da leen di nax mooy lan moo di man alal jéema leen di laaj yéen laa bëggal lu baax waaye man alal maa ngi koy am mën naa ko am ndax jinne yéen mu koy jox waaye Sénégal itam dafa naïf te itam wala fi nee nañu ku demul الله ربي موسى دم دي ماسي فرعون كو جابو ولي يلا جابو موسى مروم جاب لول مو اك مصيبه لا غيس نين سونو ريزو سوسيو غيس نين تيليفزيون ياك راديو يي غيس نين جبار يي بس بو نك ندج اب جبار بو بس بو ген ني ناندي غيس اي جين ني ناني داني فاتلي ني ناني مو اك من نانيو خام كوي غاني كوي غاني واتي بي ni nana ñu dañu bëgg ñi nana ñu mën nañu xam ndax dañu andi coupe bi ñi nana ñu mën nañu andi coupe bi Sénégal subhanallah ba nak ñu wéru nak ata xey bu mom ku ci dugg sa borom yàlla wer la ci gëna a bari waaye gis ngeen ni ñu ni ñu amé légui ay sëriñ yu bari ak ay xamkat yu bari ñi di dem ci réseaux sociaux yi ñi di dem ci télévision ak radio bi di dige di dégg am naa nangam man naa nangam man ma la defaral bayra man naa la def luy tax nga am alal man la laa mu di wax rek di wax fekk li tax juk moy alal alal alal rek da naka bar na ci jigéen ñi sax ñoo xamné leen tax di sëy moy alal ak ñoo xamné dañoo fase leen tax a fase mooy alal alal alal alal kenn ku nekk ci ñun léegi bopp itteem mooy alal ak nu mu ko amee na fen na tappale na jaay jaayin wu xaraam loolu seetatu ko na fexe ba am alal rek aha nga gis ay jigéen ñoo xam ne dañuy waaj ba jekk feeñal seen awar la ci mbedd mi di di raas ay góor te fekk alal la bëgg nga gis ay nit ñoo xam ne bañu ñu sax dem nekk franc-maçon ndax ñu am alal ñenn ñi ba ñëw nekk góor jigéen tànk loolu dana leen tax am alal alal la ngu noonu yàq na jikko yi bu baax a baax loolu tam bokk na ci lii wane ne jaarale wunu sunu mbir ci yoon yàlla rëdd ci alquran sunna aha loolu lépp nag boole ko ay bida ay bidaa yu bare bare bare ci diina yi suñu haadi radiyallahu anhu daana wax xaw ma bidaa yi ci biir senegal ak xobi ngeer yi ci àll bi lu ci gën a bari كتيل بداية جنا بري تيل والو جنا آي أها لو بري بري بري كي أتي دين جي لاجي ودن كو جناو لك ربا كن دفتو كم يدارا مونغو خمجن ربا جوليك جو بري بري بولي نيو ربا سخبو أي آي نيو تي أي حادث نيو تي ربا الفضل ربا النسي ربا جو جيجا تي بانك با بانك بي موم كنا خمجن بوفي بوفي على المال جيلا فعلى الربا لي دون وعلى لو كنت يتتوكو mu ngoog riba fadl mooy lan riba nasiya mooy lan kenn seetatu ko moom daal na alal ji am rek aa ah. nee na sunna sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam kenn nu toppatoo ko lu dul lu néew ñëw ci nit ñi loolu tam ba tey bokk na ci mandarga yi aa ah. waaye mbokki jullit yi jàdd jàdd yu bari yi ma wone bëggoon naa ngeen dendale ko ak ay xew-xew yi xew ci biir Sénégal xew-xew yooya bokk na ci li ngeen gis mu am ci réew mi ci jafe-jafe yu bari ay feebar yu bari koo gis dafa yor tension wala dafa yor diabète dafa am cholestérol dafa yor arthrose dafa yor nerf sciatique daanaka koo dajeel ne ko mbaa yaa ngi tane feebar yu bari lool yoo xam ne docteur yi faj nañu faj faj munuñ ci dara yàlla ko wàcce yàlla ko wàcce ba tey bokk na ci ay yeeg musiba yi rey gu bari gi ak accident yu bari yi lii dee ci ay nit ci ci Sénégal léegi par semaine ak par weer kenn xamul lu mu toll bis bu nekk nga dégg oto bu accidenté nanga mi nit dee dara jaa ngi tali bi di wal rek ba noppi nit ñi tam di rayante mel ne dañ leen a xabtal ñu ngay agressé ñee ñii ay xale yu ndaw sax yoo xam ne ay mag leen di jàpp leen def dekk leen di léeg nga dégg borom bitig boo xam ne bi ay bandi ñoo ko fay fekk yeew ñu jël alalam dem seen yoon mu ngoog rey gu bari rey gu baree baree bari ak tam yenn saa yi taw day jot ñu xaar xaar duñu gisub taw mu yéex a ñëw lool ñuy dem ci jàkka yi di ñaan mu jékki-jékki taw andi ndox moo xam ne day bari lool ba ba nu inole ndox moo xam ne day bari lool ba kër yi lab ci biir ndox daanaka tool yi lab ci biir ndox daanaka ànd ak nag ay ngelaw ak ay dënnu dënnu yoo xam ne léegi day dal ci kaw nit rey ko ñaari nit ñu taxaw muy dënnu di waaj a taw ak dënnu wàcc dal ci kaw kenn ki mu dee léegi ci kanam ko ci des ak ànd ak ngelaw yoo xam ne day day euh, dajji ay ay ay ay xaddi néet ngelaw yoo xam ne day fekk nii ba ñu xadd ko mu mu fa xadd ba sànni ci àll ba ngelaw loo xam ne day fekk garab mu daa mu daal di buddi garab gi wala mu dem bànqaasi garab gi ngelaw yu am doole lool lool lool ba mel ne dañuy bëgg a fàttali suñu borom yàlla dañuy bëgg a fàttali ne aat ba ko tooñee xaw ma aat ba ñu tooñee yàlla yàlla nee na damaa tàggat ci seen kaw ngelaw muy ngelaw guddeeg bëccëg suba ngoon mbokk jullit yi nan leen dellu gannaaw tuuti ci Sénégal am na fi ay guddi yoo xam ne ngelaw li ci biir réew mi mépp ngelaw lu gàtt ndax wessu jenn guddi waye ñaata néeg la fi yàq ñaata dëkk sax la fi yàq ñaata garab la fi la fi saq ngelaw yoyu bu fekkone ne yàlla da ko bàyyi mu am 24 heures wala mu am ñetti fan fu nu jëm moonte ni yonent yàlla yonent yàlla uhud ba ko yàlla yonne ci xaw mu aad ñu lànk bañ ko wuyu yàlla neena dafa yebal ci ñom ngelaw ni nga koy nettali ci alquran في سورة الحاقة مثلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية تابرم يا لني أنا قالوا أمدوا لي يا نخمن ذي جف ذي فت نت نكو جف نت لاوا سان نكو تجرب ببتك مدانو نفاب جرب سان نتي كر كر رما تجد نقلوا لك سين لما جروم نعري جودي أجروم نتي بتك مغوك mu sax dàq ngelaw guddeeg bëccëg moo moo waa Sénégal sans borom yàlla bu nu merawoon woon ba sunu ngelaw yooyu ne fi amoon bëkk démb mu sax ci réew mi lu mat juróom-ñaari fan fu nu jëm sans yàlla teg ci itam xaw ma nuux xaw ma nuux ñoom leen yàlla def mooy dafa indi ab taw taw bu baree baree bari ba mujj kaw suuf lépp taa ba ëmb kër yi ëmb garab ëmb montagne yi nit ñëpp dee gis borom yàlla dafa mel ni bi muy indi inondation ci Sénégal ak bi muy indi ay ngelaw dafa bëggoon a fàttali waa Sénégal la da leen xaw ma aat ci ngelaw yoo xam ne da leen a rey ba ñu dee fataral xaw ma fiha saraa nga gis nit ñi ñu ne lareet ci biir ngelaw li ka annahum ajazu naxlin xaawiya nit ña mel na ay dàtti tàndarma yu daanu ci suuf ñëpp a dee nuux nag ñoom itam ñoom ñëpp a dee ci kaw ndox ak inondation inondation am na Sénégal ay ngelaw yu bare bari am na Sénégal donte yàggut te yàlla nu yàlla jéggal yàlla bu nu yàlla topp mbokki jullit yi lii nu fàttaliwul ne suñu borom yàlla ni ab yaram jege nanu te waxtu wu mën na koo dóor te mën na faa jaare bu ko fàttaliwul ba tax nu daw delsi ci yoonam wi tuubal ko te jéggalu ko kon yàlla nu yàlla jéggal aha hmm. waa Sénégal képp ku bokk ci peuple Sénégal maa ngi lay woo di woo sama bopp ci nu tuub ginnaaw nga xam ne suñu crise yi gis ngeen ni mu bare te itam suñu borom yàlla mel na ne mi nga wax ak ñun mi nga wax ak ñun ci ay taw yi tardé di wax ak ñun ci ndox mu bare ba ñuy indone di wax ak ñun ci ay ngelaw yu bari te yàggul di wax ak ñun ci yeneen xeeti problème nan leen tuub balaa merum yàlla ñëw maa ngi woo sama bopp di woo bépp sénégalais buy dégg kàddu bi ngay góor di jigéen ngay mag di ndaw ñun ñëpp nañ leen tuub te del si ci siraatal mustaqim yàlla nañ ci yàlla dimbali mhm. te itam bu wootee tuub googu man jullit ñëpp laa woo bu kenn yaakaar ne diw laa waxal bàyyi diw maa ngi wax ak salafi yu yeeg suufi yu yeeg tijaan yeeg qaadir yeeg ibaad rahmaan yeeg falaax yi képp ab jullit buy wax ashhadu an laa ilaha illa ci biir Sénégal gii ñun ñëpp nañ tuub suñu njeexu yu bëri yi xam nañ ti yu bëri xam nga ne naa lu bëri ci ay njeexum te bàyyi naa lu bëri am na ci yoo xam ne sax ragal naa koo ndax ñaaw mu ñaaw am na ci xam na rus naa ko tudd ndax ñaaw gu mu na ko gën a xam kon bokk ñun waa Sénégal ñun peuple bi ñëpp ñun ñëpp nañ tuub suñu dëgg suñu problème yu bëri yi jeex ah. nan delluwaat ci alquran nan tuub te delluwaat ci alquran jàng ko beneen xeeti jàngin mbokki jullit yi nan delluwaat ci alquran jàng ko beneen xeetu jàngin bu bokkul ak di jaar ci laaya yi ak ci saari te doo xam lu mu tekki nan ko jàng jàngub settantal ko ba xam lu mu tekki nan seet ba xam suuratul fatiha nan seet ba xam suuratul nuur nga xam ne moom laa dégg bi may dugg si ki doon jàng di ko jàng nan seet ba xam suuratul baqara nan seet alquran ji saar yii yàlla di ci wax nun li muy wax ci alquran lan la nu jàng ko jàng yi nu jéem koo comprendre jéem koo xam buñ ko xamee nu dogg ci jëfe ko dogg ci peese ci suñuy pas-pas ak suñuy jikko ak suñuy wax ak suñuy jëf ak suñuy jëflanteel man daal mbokk nit yi lii maa ngi ci woo sama bopp di leen ci woo di woo képp kuy dégg kàddu ci bu kenn yaakaar ne waxuma ak yow naw yaa ngi dégg sama kàddu wala yaa ngi jàng li ma bind yow laay waxal gannaaw bu waxee sama bopp yow laay waxal tuubal balaa euh, rëccoo wees wees ñun ñëpp nañ tuub te dallu ci alxuraan jànge ko neneen nu bokkut ak ñii nu koy jànge nan ko jànge jàng yi nu jéem a xam lu mu ëmb te settantal ko jéem koo xam te firee ko ni ko sayidna muhammad alayhi salaatu wasalaam firee ci sunnaam te dallu ci di ko jëfe di ko jàngale di ci woote elen ci yàlla dimbali <laughs>